waaw soxna Awa ñu ngi lay fay salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant yàlla julli ci yeneent bi salallaahu alayhi wa sallam di sant Sëriñ Tuubaa suñu yaakaar tey ak ëllëg eh, di sant suñu waajur wu jigéen soxna Awa eh, di ñaanal suñu waajuru góor sëñ Moustapha moom Cheikh Mamadou Fadal yàlla yokk leeram di ñaanal tam suñu waajur Cheikh Moustapha moom Cheikh Mamadou Bachir mi nga xam ne lii ci ndigalam lañ ko defee ñu ngi ñaanal moom tam yàlla yokk ay leeram ah loolu moom euh, ku nekk ak sa métier ñun dañoo jàpp ne suñ métier mooy lii yar ay nit jàngaleel alxuraan yar leen yee leen ndax sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bi muy sañc dëkk bi li nekkoon yéene mooy toog fi alxuraan kon loolu mu bind bàyyi fi ñu wax euh, wax ñu dégg kon li nga xamante ne que ñun jàpp nañu muy suñ wàll ci waar wi jigéen lañ ñu yar ndax ñun jigéen ñoo war a jur ñoo war a yar ñoo war a yor surtout que nag taalibe Serigne Touba bi nga xamante ne que maam li nekkoon bëgg-bëggam mooy toog ci dëkk bi di jàngale kon bu ñu yàlla mayee bàyyi ñoo suñu xel li ñuy yaakaar naa li suñu warteef mooy toog ci dëkk bi di jàngale ko alxuraan yaral ko doomu julli di yee leen. loolu en tant que soxna yan yan yan jafe-jafe nga ci jànkonteel. waaw jafe-jafe yi moom bari na waaye jafe-jafe yi moom ñemewuñ ko wax ndax dëkku Sëñ Touba bi ko xol Sëñ Touba li mu fi daj ak li mu fi jànkonteel bi mu fi nekkee kon képp koo xam ne nekk nga fi. Euh, te liggéey bi jafe-jafe ji mënuñu ko wax ndax euh, sëñtu Tuubaa moo taamu ñu bokk ci ñi koy liggéeyal waaye du suñ xam-xam du suñ man-man du dara ci luñ ci man waaye sëñtu Tuubaa moo taamu ñu bokk ci ñi koy liggéeyal ci dëkk bi loolu rek moo tax jafe-jafe yi moom ñemewuñ ko wax sax nag waaye bari na lool jafe-jafe yi xale yi bari nañ fi mu toll nii ba amuñu fuñ leen dugal ndax néegi fees na ñetti weer a ngi nii mënatuñoo jël benn xale ndax amatuñ fuñ leen dugal kon loolu jafe la te da ngay am yéene yi képp ku fi am bëgg a indi doomam nga am yéene yi jël ko jàngal ko yar ko yee ko waaye boo demee ba nga xam ne nag lim bi mënatoo leen a yor doo man lu dul rek ku ñëw nga delloo ko loolu mooy gën jafe-jafe bi gën a métti ci ñun. maanaam espace mate na ko mais euh, maanaam defaraat yeneen i classe ak defaraat yeneen i néeg ak yu mel noonu moom moo jàppandeegul. waaw moo jàppandeegul ndax néeg yi boo xoolee école bi yëpp juróom daara ji yëpp juróom benn néeg la xaw ma juróom ñaari nekk xam nga loolu boo ci bëggee yu téeméer nit ak ñaar bëgg a jafe-jafe lay indi lépp nag ñu ngi ko teg ci euh, liggéeyal Sëñ Tuubaa rek Sëñ Tuubaa yi nag lu ñu tàllal suñ loxo ndax moom mi def ba mu ba mu commencé fii mën naa dem ba jàppale ñu ba liñ bëgg am ko. Mm-hmm. en tant que soxna naka ngay boolee ñaari ñaari liggéey bëgg a yore daara di fa yor ay xale bëgg ak liggéeyu kër ga ak borom kër geeg yooyu. loolu lépp dana yomb ndax bi euh, biñ ko tàmbalee lañu Sëriñ tubaa booleek ñoo xam ne. ñoo ngi bokk yéene bokk pas-pas ku mel ne Serigne Saliou sekk mii moom moo fi nekk ci daara ji su ma fi nekkee moo fi nekk moo fi nekkul moo fi nekk ànd ak eh, ay maam jaare yoo xamante ne que poroxaan lañ mokkale ba ñëw nekk ci eh, daara ji yor liggéey bi su ma toogoon am ñetti weer àll du tee dara du yàqu ci liggéey bi ndax maa ngi ñoom ñoo bokk pas-pas bokk yéene ñu ngi liggéey ñu ngi góorgóorlu xale yaa ngi mokkal ñu ngi lekk ba suur ñu ngi naan mm, am am nañ daal dalu xel dem fu ñu neex te teewul liggéey bi di dox loolu lépp nag jagleel Sëñ Tuubaa la jagleel gi la. maanaam ndax am am na ab ràññatle ci diggante soxna su yor daara ak góor gu yor daara en tant que jigéen yow est-ce que loolu jaa am na am na benn ràññee boo ci boo ci boo ci boo ci gis. déedéet gisuma ko nag ndax xel mi yàlla may góor moom la may jigéen lu war góor rek war na jigéen yàlla fu mu tuddee góor tuddu na jigéen kon jigéen ju jigéen ju jóg pour loolu day yomb ndax bu ñu xoolee soxna Maymunatu Maymunatu euh, mu Seexul Xaddim daana yor ay daara bind kaamil di jàngale alxuraan buñ ko xoolee ci soxna asawaalo mi nga xamante ne que mooy yaayi soxna jaara loolu moo doonoon métier soxna jaara loolu moo doon métier kon nit ki mënoo ne danaa doon diw waaye soo royee diw mën naa am nga raw sax maas loolu lañ jublu roy sëñ Tuubaa roy soxna jaara roy soxna asawaalo jigéen ak góor yàlla may góor la may jigéen ci ci côté boobu ah loolu moom loolu moom li li ngeen def rek moo koy dindi li ngeen def rek gëm seen bopp rek xam ne li war ñee war na ñi ku sargal ñee war ngaa sargal ñi ndax liggéey moom liggéey la rek ku ci nekk nag liggéey bu nga sentir sa bopp rek waaye liggéey liggéey laa gis. yan yan kàddu ngay ak bu fekkoon bëgg nga état dugal loxoom ci jàngalekatu alxuraan yu jigéen yi ci nag ci naka la ko war a mën a defee. waaw loolu moom yaakaar naa war naa mën a nekk ndax li tax mën a nekk mooy um, la am poroxaan amul fenn état dana jël nit jàngal la waaye bu la jàngalee kaye bi ngay jàng sax yaa koy yaa koy jënd. la nekk poroxaan nga xam ne ñoo lay yar ñoo lay yor ñoo lay dundal ñoo lay wodd ñoo lay defal lépp loolu amul ci Tuubaa rek la am sëñ Tuubaa rek a ko am jar la jàngal la yor sa lépp fii dong la am fii tam ñu ngi jànkonte yoo xamante ne que état war nañoo jàppale ndax képp koo xamante ne citoyen nga rek ci dëkk bi nga bokk kon na nga amee droit tabax ay école français nit ñi di fa noonu nga war a amee droit tabax ay daara fay jàngal alxuraan ndax alxuraan mooy defar sa ëllëg français bi xëy na mën nga cee liggéey sa àdduna mais munoo ci defar sa àllaaxira li nga mën a defaree sa ëllëg mooy jàng alxuraan xam ne la suñ borom sant nga jàmm ko loolu yaakaar naa lu français bi am rek daara ji war na ko am kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñoom itam ñu ñëw jàppale ñu formel ñu jàngalekat yi jàppale ñu ci liggéey bi ndax ñun yoon nañ jardin yoon nañ école yoon nañ daara kon loolu soxla nañ ndimbal waaye nag ndimbal li gën a waaw boo xoolee ñi nekk daara ji école bi jardin bi matul junni moom waaye xaw naa takku waaw takku na matagu ko moom waaye takku na te lépp rek bu ñu amoon euh, ay loko mën naa ëpp fii mën naa ëpp fii waaw ñàkk mooy rek moo tax mu yem fii waaye moom ñëpp ay sénégalais lañ ay jullit lañ ay murit lañ ñeneen sax ñu dut ay murit ñu ngi ci ndax boo xoolee école bi daara ji nii am na ñoo xam ne seen waajur dañuy liggéey ci banque yi ñu ne ci hôpital yi ñu ne feneen ñu affecté leen Touba ñu jël seen doom bi leen indi ñuy jàng kon léegi nekkatul murit yi jullit yi la Touba moom léegi ku fi jàngal alxuraan da nga jàngal murit da nga jàngal jullit te alxuraan ñun ñëpp ko bokk loolu moo tax ñu taam loolu. kon daal ministre de la femme ak ñu mel noonu war nay gestuwaat bu baax a baax soxna yi mel ne yow di yëngatul li nga xam ne moo jëm ci wàllu éducation yu mel noonu tey bañ yamale journée bi rek ci ñi nga xam ne ñoo gën a fees ak yooyu. waaw loolu war na leen ñi ñi gën a fees ndax euh, bu fekkente ne que liggéey bi ñëpp ko bokk kon ku fees ak ki nëbbutu ñëpp rek war nañ leen jàppale ñu ngi séntu tam ministre bi wax dëgg yàlla gis nañ ko Poroxaan mu def nag lu am solo. moom mooy ministre jigéen ñi bu bees bi nii soxna Ndeye Sali Diop mu indi ay trousse yoo xamante ne que lépp a ngi ci biir jagleel ko maam jaare yi nekk Poroxaan te jàpp naa ni mu def Poroxaan dina ko def am nañ ci moom yaakaar ñu ngi koy séentu mais ministre bi fi jógee itam wax dëgg yàlla daan nañu jàppale kon daal ñu ngi ñu ngi sant yàlla ñu ngi leen di séentu daal seen dimbal daal jërëjëf waa xanaa sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba ndax lii ñuy def moom moo taamu ñu doon ko wax dëgg yàlla moom rek moo taamu ñu liggéey ko moo taamu ñu bokk ci ñi koy liggéeyal ñu xam ne ba bañ liree bayitu kanzil kitaab wala xadis wala adab laa jamu fiddatin wala jamu sahab moom nee na trésor mooy alxuraan ak hadis ak ay teggin booba ñun tam lañu jël lépp def ko soxlawuñ takkaay soxlawuñ dara suñ takkaay daal mooy lii xam ne bu ñu sëñ fekkan duñ duñ dellu ginnaaw moom lañ def suñ takkaay di ñaan yàlla ñaan bàyyi ñoog suñu xel fekk ñu yeeg suñu xel ak suñ kàttan moom lii mooy suñ liggéey di sant tam ñu yor liggéey bi ndax kenn mënul dara sëñ Tuubaa ñu jagleel ñu mel ne bàyyi Saliou sekk mi yor daara ji ak ñu mel ne moom ak ñu mel na ñoom ca daara ja ca école ba ci jardin ba équipe boo xam ne maa ngi ñoom a yem yéene ñu ngi leen di ñaanal yàlla yokk seen kàttan ndax ñoo yor liggéey bi man sos laa def rek waaye ñoom ñoo eggale di la sant tam yow mi nga xam ne ñoo nga tey jël suñu yow moom démb la tey suñu doom nga suñu lépp la sant nañ yàlla bu baax jërëjëf ñu leen jukkal